mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare fii ci jumaa yu Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba ci taxawaay bu am solo bi nga xam daayira Muxaddamatul mu ngi koy taxawee rawat na ci weeru koor yi ba mu tàmbale ba léegi ci waxtaan waa am solo yoo xamante mu ngi koy amal eh, di fàttali ñi nga xamante ñoo xamante jombul fàtt xaw yomb lool waaye tam di xamal ndaw ñi waaye di gën a yéeyal ñeneen ñi nga xamante ni jombul diine xawuñ cee yeew lool buñ ci noppee nag am na ndogu yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy Euh, defal ñooñu nga xam ñoo teewee soon jotaay bi ñen ñi daan baaxoo jullee ci jumaa ji te bëgguñu loolee nga xam mooy seen aadawoo euh, euh, tarde ñu leen di defal ndogu lool. ñen ñi itam xëy na seen man-man tolluwul foofu bu ñëwee fi mën a xewlu bu baax baax ñen ñi itam xëy ay gan la ñuy doon ñoo xam ne dañuy ñëw ci dëkk bi xëy na xawatum rangi tuuti bu ñëwee fii mën ci xewlu bu baax a baax loolu nag ñu koy amal ci ndigalu xalif général des mourides ñu ci baaxoo di faral di dalal gan ñu fasantikoo ci dëkk bi ay kilifa ñoo xamante ni ràññee nañ leen ci dëkk bi ci ay kuréel yu fasantikoo tey jii nag euh, tribunal bu Mbàkke ñoo fi ñëw tey président tribunal moo nekk sama wetu ndeyjoor waaye itam ànd ak procureur bi nga xam moo yor wallu département bi ak euh, délégation bu am solo xam naa monsieur le procureur bu jëlee kaddu gi na ko gën a présenté bu baax a baax duñ guddal dañ lay bàyyee kaddu gi monsieur le procureur yaa ngi en direct ci MKTV télé jumaa ji. salaamaaleykum wa rahmatullah ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp. di nekk si bërëb bu sell bi bërëb bu tedd bi muy jumaa Touba te jumaa Touba bu ñu ko waxee yaakaar naa umpul Sénégal umpul également bitim réew umpul également le monde international te ñu ngi jiital kaddu gi également di nuyu le khalife général des Mourides Serigne Mountakha di jiital nuyoom si kaddu gi balaa ñuy tàmmali wax bi euh, ndaxte dañ fi ñëw euh, invitation ndogu mais ndogu bu ànd waxtaan tey bu ma fi ñëwee également dama fi ànd euh, président Cheikh Niane Euh, man la euh, man avant d' abord man maay le procureur Diallo na Omar Diallo tribunal bu Mbacké ma ànd ak sama xarit euh, sama collègue président Cheikh ñaan bu jiite président tribunal bu Mbacké moo ànd ak adjoint président Ibou Thiam ma fekk fi également capitaine Wade bu jiite gendarmerie mu fekk fi également adjoint Ndiaye bu nga xamante ne moo nekk brigade spéciale bu tuba sapeur-pompier également ñu ngi fii seen teewaay. Euh, yaakaar naa ni euh, waxtaan nañ fi tey waxtaan yu am solo yoo xamante ni waxtaan yëpp si wàllu diine la si wàllu islam si wàllu diine si wàllu dund également sëriñ bi dund également lépp teg ko si wàllu yoon si wàllu euh, sunna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax tey yaakaar naa ni tey maa ngi ko doon wax léegi président xëy na ndogu bi ndogu bi spécial la ndax balaa ngay ndogu sax da nga am xam-xam boo fi jëlee mm-hmm. te xam-xam xam-xam bu yaatu la xam-xam bu am njëriñ la te gis naa tamit fii nii ku fi ñëw da nga fiy taataan danga nga fi jàng te booy dem également dana am loo yóbbaale lu am solo la da nga xam sa wàllu diine xam sa wàllu euh, euh, islam xam sa wàllu lépp bëri daal euh, daayira également mu xadamul xadim dañ ko yàgg dégg dégg nañ seen tur si si wàllu dëkk bi mu ñuy jàppale également si wàllu liggéey bi ndax tey tribunal tey yaakaar naa ne ñoom ñu ngi dimbale police di dimbale gendarmerie si si si arrestation yu bëri yu nekk aux abords de la mosquée de Touba tey am na ñoo xamante ne dañ fiy ñëw xëy na jaamu yàlla moo fi indi mhm. am na dañu fiy ñëw pour sàkku xam-xam mais am na ñoo xam ne dañu fiy ñëw noonu te daayira yu c'est pas également la première fois ñuy mettre à la disposition des éléments de police ou bien gendarmerie ñoo xam ne tribunal pour naka noonu ñu leen di àtte au niveau tribunal de Mbacké wala di leen jàllale Diourbel également tamit gis nañ également rafetlu nañ loolu également seen organisation si wàllu ndogo yi ñu gis nañ organisation def nañ ay visite xool nañ lu bëri gis nañ également tamit ñuy jox ndogu lu bëri lan lu sakkan ñoo fi ñëw di ndogu chaque jour wax nañ ko léegi lu toll de plus de 4000 personnes ñu ngi fi ndogu chaque jour te xam nañ également wàllu islam am lu ñuy wax si joxe lekk doomu aadama boo ko joxee bu wooree ba ngoon nga jox ko mu ndogu da nga am yoolam nga am sa yool ba pare nga amaala yoolam te loolu également tamit loolu ñu ngi siy sant yàlla di leen si ñaanal te ñaan également tamit yàlla ful yàlla jàppaleen si liggéey bi Eh, ñu ngi topp si ginnaaw sëriñ bi ñoom ñëpp ñu ngi si topp si ginnaaw sëriñ bi ñaanal na leen te xam ne xam naa danañ taxaw si liggéey baax a baax a baax ñu yàgg ko defee ndax nee na depuis ñu ngi koy def te eh, kontaan nañ si bu baax a baax a baax a baax eh, te tamit ñu ngi leen si ñaanal yàlla barke lépp jàppale leen ba lépp luy si bëgg sëriñ bi defal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen baal ma ko baax a baax xam naa tuuti ki lay Euh, xam nga waxtaanu diine yi mel na ni ñu ngi leen di dimbale bu baax baax ci wàllu askan wi ndax bu fekkee ne askan diine day jubbanti day wañ day day day day ñaaxaat nit ñi ngir ñu mën a tege ci yoonu njub te mel ni bu ñu tegee ci yoonu njub yéen di ngeen xaw a noppal tuuti ndax bu ngeen sañoon du ngeen togg euh, booy atte xëy na doon ñàkk waaye bu ngeen sañoon du doon déli yu garaaw yoo xam ne kii na ngeen gis waxtaan yu am solo yooyu lan nga ciy jàngee ginnaaw bi nga dégloo waxtaan yi ni muy jubbante nit ñi fii a jaar nii mooy yoonu njub ne nee la war a demee daayira Moukhaddamatoul Khidma di jàppee côté boobu lan nga loolu am na solo lool parce que mën na wàññi délinquance. Mhm. mën na wàññi délinquance ndax tey bu fekkee dafa am ay jeunesse yoo xam ñu ngi toog di déglu wax jooju. dana am fu ñu seen tànk dana tax également ñu lu bëri. Euh, lu ñuy wax médiateur social xam nga tribunal tey yaakaar naa ne ñun euh, du ñu fekk kéemin ñaa ñu fekk si. Mhm. Euh, maanaam ku def naka su dul noonu nga jaar gendarmerie yóbbu la tribunal mhm. mais tamit sëriñ si chef de quartier yi médiateurs yi ak kilifa diine tamit am na pàcc bu nga xamante ne tamit ñoom ñu ngi koy doxal si wàllu diine euh, si wàllu àdduna di ko xamal nit ñi di ko xamal jaami te loolu également buñ doxalee noonu dana tax également ñu tamit suñu liggéey dana wàññeeku baax a baax a baax ndax buñ tegoo si wàllu yoon boobu yaakaar naa lu si ëpp tamit dana dugg fële. macha allah euh, s'il vous Nous sommes, nous sommes réjouis aujourd'hui de participer à ce Ndogou annuel qu'organise le, le, le Daïra Khadim. Nous avons tous sommes là avec le président Cheikh Nian, le président du tribunal d'instance de, Mbaké. On a rejoint également le président Ibou Cham, le compagnie adjudant Wad, également adjudant Ndiaye qui est au niveau de la brigade spéciale Touba. Euh, concernant donc les deux composantes, y avait premièrement tout simplement une une conférence

incha merci monsieur le procureur procureur merci monsieur le président tribunal yaakaar moo nekkoon kaddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci monsieur le procureur ànd ak euh, président tribunal jombul xëj waa sapeur pompier beneen délégation la boo xamante ni ñoo ngi ànd ak ñoom war nañoo yëkkee kaddu xëj na jombul euh, mën nañoo jox kenn ci ñoom bu ko defee mu wax ci seen tur euh, li nga xamante ni ñëw na te itam muy lu am solo ndax gisoon nañ kenn ci ñi nga xam ñoo fi ndogu si